masque Zelme lavoir ba ci casque de protection njëg li ñu xayma ko ci fukki million ak lu tek la internationale du transport ITF deglel marin yi ci port bu ndakaaru botu ci syndicat autonome des gens de mer ngir xex jangoro Covid 19 bi. comme ñun dañu bok ci ab international mu tuddu ITF ñom ñuy jàppale seeni affiliés yépp partout dans la sous-région Sénégal.

parce que boo xoolee seen bërëbu liggéey moo am ngaañ mais ñoom amuñu ngaañ ndax xam nañ na la ñuy protéger ci ci feer bi te protégé wu nañu seen ak njaboot protégé nañu mais seen place bi ñuy liggéey muy entreprise muy société ñoom ci boppam ñoom ñoo feebar. muy ndimbal bu ñu rafetlu bu baax li ñu xam xamle ñoom marins yi faatule nañu la ëpp juróom fukk ci seeni naataangoo. feebar bi impacté nañu ñun bu baax. parce que ñun bu ñu seetaanoon cas bi gënoon naa mënoon naa gën a ci nous les marins parce que boo les bateau ni mu bindoo seen néeg dafa xat donc contamination day gaaw ñu waxtaan ak directeur ANAM muy ku baax mu ne li ñu mën a def pour wàññi feebar bi mooy ñu confiner marins yi confiner mooy lañ tëj leen ci gaal yi marins comprendre loolu accepter ko mu doonoon lu difficile am na ci sax ñoo xam ne perte nañ seen bakkal ñu ngi koy xayma ci tollu 50 récemment nii déggoon ngeen coow li li ñu xaw a may bouffée d'oxygène ñu nooyi tuuti mooy bateau chinois yi fi ñëw. ndaje bi nag ñu ngi ko amaloon sa Moldis ki jiite transporteur yi góor xuma fësal jafe-jafe yi leen mbas mi teg. transport maritime transport aérien transport fe ñëpp ñëpp pas impacté wu kenn ku nekk yaa ngi fi dans des difficultés mu nekk lu métti métti métti métti métti ñu bari ñàkk nañ seen liggéey ndax Covid bi dafa piétiné. économie du Sénégal te économie du Sénégal bu amee bu amee torof torof rek forcément dafay ñëw ci entreprise yi te lu laal entreprise rek dafay laal travailleurs yi ak travailleurs il faut que ñu évaluer évaluation mënul nekk tant que la union patronat bi tant que la union travailleurs yi ñu les manques. Tant manqué te lu bari lay doon ñu mën a mais mënuñu rek. na dañuy dimbale te xamuñu mesuré wuñu impact bi te impact ko bëgg a xam di kuréel bii di ITF fas yéenewul yemale ndimbal bi rek si bu Ndakaaru bërëb yu si mel ni marché poisson bu pikin quai bu Mbour Rufisque ak yeneen ñu xam ne ni daañu jot seen wàll si ndimbal li.